ak lan lay tontu Thiamas. dikkal dikkal ay ay dikkal dikkal. waaw maa ngi fi rek ça va bien. jërëjëf jërëjëf mbokk yi. tey nag ñu ngi am kii nga xamante ni nii mooy président de tous les sénégalais Moussa Macky Sall sénégalais bu mag bi africain bu mag bi kii nga xamante ni nii actuellement moom suñu borom dénk ci réew mi Moussa Macky Sall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di kontaan ci invitation bi mu ma invité di rafetlu émission bi ni nga ko leeralee parce que tamit da ñu woo pour leeral il faut ma leeral li tax. ma yëkkati ay kaddu yu ñagas teg ko ci ñi nga xam ne ñooy maire yi nga xam ne ñoo gérer ci communes yi. dëgg la guddi yéen toll nga defati bës sax laay wax ñi nga xamante ni ñoo dénk maire yi ku ci nekk da ngaa wax ak moom suuf si nga xamante ne nii dañ koy caxat caxatee da nga ne na nga ko teg benn place waaye lu nu gis ne ba nga waxee loolu asarak nag def sorti tontu na lu mel ni ñeex noo gisee loolu. waaw parce que tamit xam nga tamit bu fekkee nag état dafa jël ay suuf attribué ko maire yi maire yi suuf yooyu nga xam ne nañuy jël di ko jox ay indien ay chinois ay japonais. di ko jox ñeneen ñoo xam ne nekkuñu ci réew mi di ko xañ ay baykat ak ay sàmmkat. loolu dafay jot hectare teg ci wax la ñu teg ci yoon. dëgg la parce que du ñoom ñoo ñëw ku ñoo ñu dagal la ay hectares. ay cent hectares benn maire kese di ko dagal di ko octroyer ay étranger mais loolu du yoon loolu laa leen wax ne nañ ko teg ci suuf. te comme que ñoom dañu am mbootaay association des maires te sama raq bi ma bokkoon daj bàyyi jiitu ko mais su ma waxee. li mu war a wax mooy président li nga wax dëgg nañ ko dinañ changer doxalin. d'accord mais ñu nekk fa naan non état ak ñun yéen li ñuy def ak yenn benn la complice la loolu mooy ma ne nag man dafa mel ne dama complicité ci li nga xam ne moom lay wax. dëgg la waxante dëgg quand même un peu de respect. wax dëgg yàlla amoon beneen maire boo xamante ni nii toog na duggul sa rak jëmm jee nga xamante ni nii ñaari ñaar yéen a bokk day at bàyyi. ah nag moo yëkkati kàddu delloo la ko lim la wax nag amaana Sénégal yi gépp dégg nañ nee na yéen ak ñoom ay complice ngeen ndax du ñu jël li nga xam ne mooy suuf ñoom kase ñu def ci te amul ñeneen ñoo xamante ne dañ ci taxaw lan nga jàngatee loolu. man loolu man danaa ko gérer parce que ñi nga xam ne ñooy état parce que ñoom démarrement la ci état maanaam benn faq la ci suñu ay faar tey jox leen ko tey bu ñu doon xaaj tey dafa am loo xam ne dañu leen ko jox ñoom kenn ku nekk bu nekkee sax waa AFP ñoo Grand Yoff waa grand parti ñoo gañ a Guédiawaye war a feneen du tey président Macky Sall moo leen jiite ñoom ñëpp. dëgg la il représente le président Macky Sall le président de la République. en matière de décentralisation ak localisation yi nga xam ne moom mooy communes yi. Mhm. ak département yi soo gisee ñu arrangé ko pour kenn ku nekk xam cër-cër bi. Mhm. parce que je suis le président de la République. loolu am na. c'est le gouverneur qui me représente dans la région. la. c'est le maire qui me représente dans la commune. dëgg la c'est le chef de quartier qui me représente dans le quartier. dëgg la c'est le militant de APR qui est chef de famille qui me représente dans la famille. dëgg la kon noonu lay amee par ordre. dëgg la kon su ma waxee ci affaire suuf yi moom la sama rakk ñu bokk ndey ak baay. dëgg la mais mu sagal ma quand même ne ma président li nga wax dëgg la dinañ ko bàyyi. wax dëgg yàlla mais di ma jéem a wan ne que moom mooy gëree gëreelu. Mhm. ah di wan ne que moom li ma wax nii moom da koy jéem a offensé. Mhm. mais dafa mel ne il bafoue l' administration sénégalaise manque de respect boobu laa jël wax na ko pour man du ma nangu koo xam ne sama rakk la tey. ma dimbali la ba yenn yoo xam na tey boo ko amee ginnaaw yàlla mën la mais nga sagal ma tamit wax nañ président li nga wax am na dañ ko bàyyi. dëgg la mais naan ay complice ngeen loolu bokkul ci li nga xam ne mooy ci ci ci doxalin. dëgg la waaye moom it ba mu ko waxee ba nëppi dem na kër bàjjanam. nee ah, du ma réer sama bàjjan woon ma du ma réer. xam nga fan la nekk bi yow ma génn kër gi boo tegante sànq kër gi di nga ko dëggaale ak man parce que daf ko pare daw. daf ko wax ba pare daw daf ko wax ba pare daw xam na li mu def waaye ëpp naa def ah non aggal ah damaa xam ni moom moom ci wàllu boppam waaxu na dem kër bàjjanam waaw seeti bàjjanam bala koog ni jaayam toog waxtaan ak ñoom ne la woo la ñetti appel yoo xam ne jëloo lu waral loolu waaw sa moom na jowaat Timbo nga xam ne moom mooy meeru meeru Pikine mhm. moom ci boppam sax mu ngi koy okk nan ko xam nga kooku mer la di ko war naan ko li ngay wax ni ëpp na parce que moom dafa jaawale message Aliou Sall ak sama portable mhm. ma jékki-jékki sama message sonné ma gis ko ma bind ko monsieur le maire bàyyi li ngay wax cëralal sa mag. dëgg la xam nga kon kooku mu ko doon yedd juum dal ci man. Mhm. mais léegi Alioune day jaay dëgër bopp di wane ne que moom si amee dëgg ah moom daal moo fi nekk mooy rakku Macky Sall mais munoon na rafetal gi. absolument mais boo nekkee président association des maires nga taxaw ne leen carrément sama grand frère la. li mu wax ni président de la république li mu wax ni mooy yoon nañu bàyyi affaire yi bàyyi leen ñoom ñu gérer ko. mais di defante ak man di jël un discours sérieux di ko def di wan ne carrément que moom ah mais dinaa ko wan na ko yar bi nga xam ne moom laa ko doon dóoreel damul ah? damul de sama kër bàjjan bi nga laaxatu ak sama nijaay cimboo dinaa la fekk foofu ëpp naa def di parce que bu non dama koy parce que tamit la presse aujourd'hui dañuy wax Aliou Sall défie son grand frère défie son grand frère mais loolu loolu moo doon du yoon bilaay du yoon maa ngi lay ah, waatal nee ni ma julli ma bandiraaɓe so ane ko joddana galle ma billahi wallahi taala yan ma yarta ah, ëpp naa def xam nga li ma koy wax ëpp naa def yarta naa yarta naa boo ko déggee muy am denc la na yet woo xamante ne nii mara détaillé xam nga li ma ko wax waaye yaakaar naan est-ce loolu ma wax rek ay dóor war na ci am man bu ma ko dóor loola def bu ma ko dóor loola def est a koo woo rek wax téléphone ah, woo ko téléphone na ko pourquoi nga doxale ni mu ma noonu laa mu noon doxale parce que instant boobu mu ngi ak ba tey di gëree mais mu woo ma ne ma lii tax dëgg la yow xam nga ne ma xam na ma dofaloo dina jàppaloo ba nga sàccee mango kër Aliou Ndiaye. Eh. xam na. ñu jàpp leen yàgg say ay copain bi nga ñëwee dama la yar la ci biir kër gi. tey xaw ma foo dugg na sama kër bàjjan war na sama bàjjan sama bàjjan nee na dafa daw moom kër Timbo. mi ngi kër Timbo léegi nag kër Timbo laa lay fekk. yaa ngi may ni di ma seetaan TFM billaay ñu yar maa jut maa jala gale maa woon ne saa war a ko jël maa carmaani de. ëpp naa de xanaa maanaam carmaani de. wallaahi xam ci lu mu koy wax. carmaani de Alioune Sall boo ko déggee nga xam ni naa métti di dóor yoo xamante ni nii mën nañoo xëy suba ba ngoon di la doo tudd dal waaye prise yi wax dëgg yàlla yeneen maire yëpp dana ni tekk est-ce que sax doo sagal yeneen maire yi nga xam ne waxuñu wax dëgg yàlla defuñu dara Alioune Sall moom nga ba ko rek bañ koo dóor tamit fu nii yor na soxna yor na lépp est-ce que loolu non mais man tamit man président de la république wax naa li may wax ak moom dëgg nga Thiamas dans la pays démocrate dafa am yoo xam ne ngay sagal sa mag da surtout su ma waxee nga ne lii sama mag wax dañ ciy ànd état lii la doxalee dëgg parce que sama parti nga nekk dëgg la sama couleur parti moo far ba nga nekk géejawaay dëgg la mais ñëpp xam nañu dëkkoo géejawaay dëgg la y a des choses yoo xam ne sa mag bu la ko defalee da war a sagal mais di génn dana di nganda ngandalu di jéem a wane nag xam nga booy booy ngay politique da nga fi bàyyi xam naa ko da ngay xëy xëy suba tel mun a mun naa remplacer Macky ni eh. yar ma naa gàllama woon saale ko jotee na garma billaay wallaay talaay saal niw di maa jàllema naa sarta xam naa xam na ñu wana maa kanaan ñaanaan baaboy billaay wallaay talaay saar xam naa xam na ma mi war a man galle maa wodde sa war te jarte ma nan galle xaara ba nga ñëw kër ga rek Aliou li ma lay digal fottime naa wodde ne sa ko no won na waroji jotte nen galle ma har ko nan ko debbo debbo saare non xam na jabaram jabaram na worte arte jarde ma na ko noon makki saare ko jedde nana fodde ne hundini ko weddede ko quoi ah, gis nga ah, Macky a a xam na xam na ma xam na ma il va passer sama bàjjan wax naa ko ngay daw dem sama kër di laqatu mu laqatu dama dem ci kër gi mu dugg ci saaku ceeb bi kenn xamul fa saaku ceeb xam na bu dugg si saaku ceeb bi ñu yaakaar na ceeb li war ci ma galle ma nee na ko malo barka ma sela ci ci loolu ci na war ko ci londoy na wan garda ko ko quoi eh! na war a bottee na ko waa loolu <laughs>